अच्छा अब तस्वीर फिनाल final final léger baa ngi noonu diggante Pa Moussa Bargny bunjada, Laye bu Ndianda aca Laye bu Ndianda moo nge moo ngem lu vert li Pa Moussa Sapeur moo sama grand Laat Léegi tuba borom Toubacouta maa ngi koy siyaar waaye sama cameraman Sampa maa ngi koy di ma sou production lam au grand événement way di bëggé sama dëgg waa Palmarin Liko jëlé jëlee ngunu man ngay jaxat nok ji fer ngalu di bëggé sama abonné yi Pa Moussa lay njaana final point eh eh di bëggé doni eh Pa Moussa wu na ko planté wu lamb eh da koy dal eh Pa Moussa dal nako Pa Moussa jaxan jom na eh, eh.